di guddi juddu sang bu tedd bi yonent bi sallallahu alayhi di ko siqat ak yéen def at yu bari ba yàlla di ren ñu ñaan nu ca daan am ci yiw yàlla defal nu ko lu ko ëpp ci atum ren mi te lu nu ci fas ngir gën ko dëggale sunu cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi di ko saxale sunu sunu jokku ci ndono bi mu fi bàyyi yàlla defal nu ca la ëpp sunu yaakaar di leen ziar ci bis bi di leen ci ndokkeel waaye di leen ci massawu ndax moom màndarga gàmmu mooy xat-xat dama koy tooñe jigéen ñi di wax ni gàmm moom ku ku ñëw itam ah boo amee foo wéer sa ginnaaw baax na soo amee foo mën a toog tàllal sa tànk baax na a ah, boo jaamu yàlla jotee nga mën koo matal itam tabarakallah a ah, kenn mënu ci paase loolu ndax dafa xat te li la koy wan ku ne fa nga jóge laata nga yegsi boo bu ñu la nee bëccëg bi xat na doo ci teg baat moo tax dañu doon dégg ci suñu kilifa suñu sëriñ Seyid Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum muy wax ni c'est le jour le plus long xam nga anglais yi ñoom nee nañu bis bi armée yi coalisé jóge Allemagne di dugg soit France pour dàq jóge Angleterre pour dugg ci France pour dàq Allemagne nee nañ bis boobu moo gën a c'est le jour le plus long waaye Serigne Cheikh nee na moom bisu gàmmu c'est le jour le plus long nangu nañ ko ndax bisu ñaan la bisu jaamu la bisu tax jokkoo njaboot gi la te am nañ ci firnde mooy benn at moom Serigne Cheikh toog na ci saalam sunu nijaayu bopp ba njóogu wàq ba toog ci wetam ku nuyu Serigne Cheikh rek mu jaay mu jaar ci sa sant ku nuyu rekk mu jaar ci sa sant ba jékki sunu nijaay bi déy ko moom njóogu wàq ba ni ko waa lii noo ko mëne ku la nuyu nga jaar ci santam seen cheikh ni ko ah ñi ñooy man may ñoom moo tax waaw su ko defee bés la bu nga xam ni e dañu ci dëgërale sunu cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dañ ciy dëgërale itam sunu yaakaar ak sunu jëflanteeg njaboot gi eh, moo tax su jotee eh, jot du temps bi du la ko may sax waaye su ñetti njaboot yeeg see rek nga génn nuyoo ak ñoom ah seet leen ndax fa nu jógee ah te bu nu ñëwee bu nu sañoon gis seen sëriñ wala ñu gis ku bokk ci seen sëriñ bu Fatiha mu jàngal leen ko ñu dolli dellu sax dalal na seen xel e nu ziar ñëpp nag sant ñëpp ziar sunu imam mu ngi nii toog Tamsir moo njëkk jël kàddu ci daara ji la yaroo boroom cër la di doom ci sunu góor ga El Hadj Ablaye Diom yàlla yàlla yokk leeram ah tooga sunu magu daara Cheikh Ahmad Tidiane Mboup di turandoo ci Serigne Cheikh waaye itam di serviteur ah ñun ñëpp ñuy serviteur waaye moom nag def na ko ba tabaarakallah mandargaam njaboot gi di ko waxtaane xam attachement bi mu amoon ci moom ak ci njaboot gi nga xam ni dañu aju ci euh, Serigne Cheikh ah ñëw itam nag. mbokk yi jóge ñaning ñu ngi toog ah sunu doom yeeg sunu mbokk yi jóge Diofior ñu ngi toog a ah, njaboot gi bàyyikoo ko ba Kaolack itam ñu ngi toog ñi bàyyi ko Ndakaaru itam tabaarakallah ñu ngi toog ah nu nuyu leen sant leen gërëm leen yal yàlla fay leen yiw lu ngeen doon dox si ci bés bi rekk ko wut ci guddi sang bi yal yàlla defal leen ko yàlla mottali seen yaakaar ah ñu wax ni itam média yi ñu ngi fi teew waaw ah, 7TV mu ngi fi tabaarakallah ah Habiba TV ñu ngi fi e, ci màndarga jamono la bokk léegi teewatuma kenn mënatu ko wax ndax li yonent bi sallallahu alayhi wa wax ni ki bëgg a ñëw bu ñëwee fekk na ma ma taxaw ki ni mënul ñëw itam ma fekki ko waaw su ko defee lay dootul am kenn du ni fekkewu ndax loo loo loo ñàkk fekke rek média yi ñu ngi woon ci barab bi e xanaa di ñaan rek seen liggéey objectivité amee ko di ñaan lu nu jox njaboot gi muy lu leen di yokk ci xam di leen yokk xàmmee di leen yokk xam-xam parce que média rôle boobu rek la mën a jouer du wàcc yoonam a ah, la ca des nag du nu ca sori parce que dafa am lu xew ci jamono te du média yi rek soo demee ci politique ba mu nga fa nga dem ci diine ja mu nga fa nga dem ci entreprise yi mu nga fa mooy mooy dañu instrumentaliser lépp waaw waaw waaw waaye rek am nañu yàlla may nag ñu gëm vocation wu liggéeyu média am na ñoo xam ne jàppewuñ ko vocation sax mission la ko jàppe ah su ko defee kon nu nuyu ñëpp ziar leen sant leen xëy na kàddu gi mën na bañ a gudd e, dañu wax ni guddi juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñuy màggal mais yonent bi léppam la ñuy màggal parce que euh, cëram yàlla yamalewu ko rek ci màndarga guddi googu ah soo demee ñu ni laylatul qira moo ko moom ñu ni laylatul isra ñu ni moo ko moom ñu ni laylatul qadr ñu ni moo ko moom boo ko toppee la guddi gu ne ak ngëneel ga ko ci yàlla defal ah moo tax soo koy roy doo yam ci ni rek sopp naa ko moo di ngën di mbindeef waaye tànk yi mu teg fa mu jaar ba yàlla gërëme ko li mu ko gërëme yëpp yow itam a ah, néew ma daa ko mën waaye daa ca am looy roy waaw ah, parce que euh, méthode yonent bi sallallahu alayhi wa du waaraate bis bu ne ma wax ko ci kër Seydil Hadj Malick radiallahu taala anhu ni leen waaraate bërki démb la fi jàngale tàmbale mission kër Seydil Hadj Malick mooy jàngale waaw Maodo daf daan jàngale moqatam yi ko doon jàngale lu la um lu la réer ci sa tariqa sa charia ñu jàngal la ko lu la réer ci sa tariqa ñu jàngal la ko lu la réer ci xam-xamu jamono itam mu jàngal la ko ah loolu la ko yàlla defaloon la ko yàlla defaloon su ko defee eh, nu delloo si fondamentaux yooyu mooy ëpp doole te wàññi tuuti propagande bi parce que yeneen bi dàq na képp ku bëgg a mission am teg ko ci propagande waaw waaw laysa minna man daa ila asabiya waaw képp ku nga xam ne yaa ngi woote jëm ci sama mission teg ko ci parparloo nee na génn nga li ma tëral ah dàq na ko moo tax dañuy mën delloo si rek kàddu yi yëwén yu ko yàlla santoon mu joxal ko jaam yi loolu la ñuy mën a delloo si wéyal sunnaam ah bu dee mag ñi ko donn itam ndax itam ay na tawajjah na loolu la moo da tubaab yi dañu doon yabal ay espion ñuy ñëw ni dañuy dañuy tarbiya si dañuy sàkku si xam-xam njëkkete loolu indiwu leen fii dañu bëgg a xam ndax dafa am lu mu bëgg a wéyal di ko nëbb waaye ba ñu demee nag ba affaire bi jël proportion yu yu xawe yéeme nag mag ñiy waxtaan ak moom ah di ko laaj waaw coono bi tubaab yi daj rek mu mu leen indi indi waxam bu siiwam boobu tarakna albihaara zahirati waraana fa min ayna yadri nnaas ayna tawajjahna waaw waaw mu ni waaw mag bu dee dafa dafa xuus juróom-ñaari géej yow pënd bi mu bàyyi gannaaw yegg a nga ni danga xam fu mu toll ah loolu mënu la nekk waaw ah, moo tax ci stratégie bi mu doxale sax et eh, xëy na ku xamul am na noo koy mën interpréter moo tax moom pouvoir colonial su ko jaaxal parce que jàpp na ni mënuñu interrompre mission am moom li mu gënoon a ragal mooy ceddo yi infiltrer liggéeyam waaw ah, moo tax lu aju ci barke aju ci nëx nëxu bakkan daf ko teel a dogale ci biir mission am parce que xam na ni su bàyyee ñu yaatu ci bu ci ceddo yu duggee danañ mujj détourner vocation am maanaam moom ñu ko ca jële mais mën nañu si jële njaboot gi nga xam ni moom moo leen doon defal formation ah su ko defee loolu mooy li nga xam ni mooy mooy cosaan li nuy ñaan di ko delloosi te eh, mission wu Seydil Hadj Malick radiallahu taala ñetti yëf def ci feeñ bu njëkk bi mooy la mu teel a xam ni na rek moo mën a dimbale njaboot gi ba dunu jàdd moo tax bi mu jàngee xadis boobu yonent bi sallallahu alayhi wax ni bada diinu gariban wa sa yaudu kama bada fa tuuba lil guraba mais yonent bi nee na maanaam sama sunna ña koy dese ji nee na lim lay doon mais Maodo ni kon solution am na mooy kuy liggéey ñaanal yàlla boole sa njaboot ci lim bu néew boobule. Hmm? moo tax eh ba muy ñaan yàlla loolu la ko ñaan bu ñu demee ba diine tumuranke ñay dese sunna di lim bu néew maa ngi ñaan man Malick ku ma yàlla jox ak ku ma am yal na la yàlla dugal ca minorité boobule moo tax yéen a ngi dégg ñu koy jàng ci ci ci ci ci wasifa yi di ko jàng ci xadratul juma bu ñu demee ba tëj rek ñu tëjee ko ñaanu Maodo boobu te mooy fa ñuy demee ba diine wéet man Malick ku ma am yàlla na la dugal ci wéetaay boobule su ko defee kooku mooy mooy mooy réussite bu njëkk bi ñaari réussite Seydil Hadj Malick mooy li mu wax ni ndamal kilifa nekkul ci mu fexe ba njabootam ràññee li xaraam ak li dagan nee na ndamal kilifa nekkul foofu nee na ndamal kilifa mu ngi ci mu dimbale njabootam ba nu xam lu dagan lu ne luñ ci war a sàmmoo ak liñ ci war a wattu waaw eh tabaarakallah yar na ci njabootam daanu fekk lu yàlla charia daganal sax doo ci gis njabootam moo tax cheikhul xalifa taala anhu daan wax waxam bu siiw boobu bari na lu la sa diine di may te sa ngor du ko may waaw waaw parce que diine ngor moo koy sàmm te na lu diine du nangu boo sukk boo ci sa ngor doo ko mën a nangu et kooku mu doon deuxième dimension bu mu réussir troisième dimension bi nag mu ngi ko réussir ci wàllu tariqa parce que fii tariqa xëy na côté mbooloo bi rek la ñuy la ñuy jugé mais tariqa bala ñu ko atte ci mbooloo atte ko ci silsila ba noppi tariqa bala ñu ko atte ci mbooloo atte ko ci silsila ba noppi te mooy ñu gis ni yoon wa mu topp ndigal la ko amee dana la yóbbu ba teg sa loxo ci yonent loxo yonent bi sallallahu alayhi wa ah, moo tax boobu boobu résultat ku ko amul gëwma ni sa tariqa daañ ko certifié ci yi nga xamante ni nii mu ngi ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax mu mu mu authentifié Maodo dafa authentifié tariqa Seyd Cheikh Ahmed Tijani di la wax moom ci kan la ko jëlee kooku kan la ko jëlee ba ba ba ba ba ba jaarale ko ci loxo yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mais yonent bi bi ñu ko laajee tariqa Cheikh yow foo ko jëlee mu ne ma Jibril lañ ko yónni moo ma ko jox ah kooku mooy base bi waaw kooku mooy base bi moo tax toujours dinaa koy wax njaboot gi. ne leen dee leen bàyyi xel ni tariqa cheikh profondeur spirituelle moo ko amee waaw ah, profondeur spirituelle moo ko amee su ko defee nu ciy góorgóorlu parce que daf nuy rapproché ci suñu digganteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp nangu jamono doon a ñëw julli gu bari du tax nga mucc yàlla ëmb la ci leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek mooy tax nga mucc ndax yonent bi eh, li ñu ko yon yërmande la ah yërmande la ba mu jeex moo tax soo ci tënkoo rek xëy na mën nga juum sax waaye moom tabaarakallah comme yërmande moo yenn mbiram rek yàlla ëmbaale la ci eh, moo tax mak ñi lu ñu nar kon sonne lu ne ñu dem jàng ko rek dañuy faf di def tawassul di jàng salaatu ala nabi la ñu bëgg yàlla di leen ko leeralal yëpp mu di leen ko leeralal ci cëru yonent bi résultat yooyu Seydil Hadj Malick obtenir na ko et te def ko fi bàyyi waaw bu doon def ko def ko def ci compte boppam rek kon dafay xat mais mu ko fi bàyyi ngeen baal ma fii ngay gis xale bu am fukki at ak juróom mu wax la gént gu mu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ngay xam ni loolu sosu ko ab shérif ñëw na fi bëgg def tournée comme ni shérif yi def pour ñu jox leen hadiya bi mu waajee bay bëgg a jóg mu ni sëriñ Babacar si radiyallahu taala anhu wutal ma koo ma booleel mu yóbbu ma sëriñ Babacar si ni ko du maay wax ku la yóbbu sa maam bi sallallahu alayhi wa sallam mooy wax ku la yóbbu moo ni ko te bu subaa doo ñëwee dinaa la wax ku mu wax ni moo lay yóbbu ci ëllëg sa bi shérif ñëwee mu ni ko sa maam nee na góor gu ñu wax saadeex ñan maam saadeex moo lay yóbbu te booba maam Sadex kenn xamu ko te booba mag ñi wër Maodo ñëpp ku ne fogoon nga ni bu ñuy joxe tur sa tur la ñuy joxe te maam Sadex boobu mu ngi ca tool ya bàyyi la xam-xamul leneen bi ñu ko fekkee ca tool ba wax ko yóbbante Serigne Babacar Sy mu takk ndeysaan ëmbam ñëw sukk ci kanamu góor gi ak kanamu shérif bi sama maam ñaanalanteeg shérif ba noppi. déey ko ni ko gis nga kii ñu la booleel du la ray ak wax te du jël sa alal kii ñu la booleel du la ray wax te du jël sa alal ah loolu xootaay boobu moo nekk fondement wu li nga xam ni moom la mag ñi di liggéeyee seen digg te yonent bi sallallahu alayhi wa il faut que ñu di ko fàttali parce que mooy mooy mooy moo nekk ci ci digg li ñuy li liy tey defar dund àdduna yëpp centralité boobu ci wàllu ku gëm asamaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk centralité boobu ah ñu jëm ci guddeem di ñaan rek yàlla nu ci yàlla gën a ubbi ñu gën di dund leeram li mu fi bàyyi mu di ndono yàlla di nu may nu di ko jëfe waaw di jëfe ndono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ah ñaan ko itam yërmandeem ak sutura bi mu fi bàyyi wax ne moom la yàlla ëmbe xeetam ak loolu yëpp ñu ñaan yàlla dugal lu ca biir ni ko sunu imam waxe nu fekk ko ay at yu bare bare bare muy gën di barkel di gën di yëwan di gën di tedd di gën di sell wax dëgg yàlla am na ñu mbégte lool ñëw fekkante waat fi ci at mi ah ngeen ñaan muy gën di yëkkati ko rekk at mu ne muy gën di barkeel yéen ñi ko fekke ren déwén ngeen ñëw ànd ak ña ngeen bëgg a àndal ñëpp ñëw ci xaal bi ngeen bëgg ñëwe ñëwee yëpp ñu di leen masaw tàngaay bi xaw na tar ndax nawet la ñu nekk ah itam ku ne am na lu lu xaw a fëkk sa bopp ndax yàlla soxla waaw ah, ku leen di ñaanal ma rek soxla sàngam lay wax wallaay waaw ku leen di ñaanal ma rek soxla sàngam lay wax ah, la ma dégg su philosophe boobu ñuy wax Souleymane Bachir Diagne wax ko ni ko le mu ni les sénégalais sont victimes de la tyrannie de l'urgence waaw Souleymane Bachir nee na les sénégalais sont victimes de la tyrannie de l'urgence nee ku xëy sa ndékki kër ngay xalaat sa añu kër ngay xalaat sa reeru kër ngay xalaat sa facture ndox ngay xalaat sa facture courant ngay xalaat moo tax léeg ngay jóge dakaar di ñibbi sa kër jant bi di suux nga gis mu ame melow rafet a rafet waaye damay ree xam ni nit ñi gisuñu ko <laughs> ndax ku ne sa sa bopp bi ah, sa soxla moo ko fëkk ah waaye nu ñaan yàlla mu taxawuñu ci soxla yi mën na ko yàlla na nu ko defal ah ci darajo yonent bi lu nu fas ngir sunu sakk fas ko ngir sunu sutura yal na nu ca yàlla taxawu yàlla sàmm réew mi waaw sàmm réew mi sàmm kilifa yi fi nekk sàmm njaboot gi te jamono itam ni mu mel ñëpp xam nañ ko yëngu-yëngu mu ngi fépp rawatina sunu tund Afrique sowu jant yi fi feeñ dafa bari a ah, te kom ñu ngi wax ni ñu ngi ci ciy muccandi nañu def lu tax yàlla duñ ci gën di musal te ñuy wattu fitna ñuy wattu jëflante ci lu lu ñaaw ak lu lëndëm nanu ko wattu du du yóbbu fu sori wax naa ko benn kilifa ci fan yële ci gannaaw ma ne ko dañ ma mas a yónni ci booba sunu baay Famara Ibrahima Sagna booba moo nekk ministre de l'intérieur ñu nekk ci période bu xaw a yëngu mu tollee crise golfe bi geeru geeru Irak ñu dem di waxtaan ak moom mu ni nu sama doom directive yi ñu ma jox yëpp mooy manifestation yi ngeen war a def dañ ko war a interdire mun ma waaye nag ñun man duma doxale noonu mun ma gis nga syndicat yi nekk ci réew mais parti politique yi su ñu bëggee def yi manifestation mu ne ma mu ne du ma leen woo sama bureau sama kër laa leen di woo ñu taal attaaya teg gerte indi bonbon tooñante ci séeréer ak tukulóor joor ak séeréer waxtaan ci tabarakallah fi jamono toll fi xa nee ñuy waxtaan ba ma yëg ni ku ne dënn wàcc na ma ne ah nañu indi nag li tax ñu daje fi nangam ngeen pose comme soxla nangam ngeen bëgg a def nangam bi bu ngeen ci duggee dafay xat ci ñun te ñu seet bunt bu ëpp bu gën a dal te pourtant nee na man damay jot ay instruction ñu wax ma ni man nañu prene élan wu opposition beeg syndicat yi mais nee na damay waxtaan ak ñoom ba déggoog ñoom rek jël sama responsabilité ah ñu may leen la ñu bëgg a def ñu def ko te du du yàq suñu liggéey su ko defee nañu delloo si Euh, méthode boobu moo ëpp doole na sénégalais yi ñëpp di waxante euh, waxante dana wàññi tension waaw dana wàññi fitna waaye suñu ko ragalee rek bu nu amul lu nu bëgg rek ci yëngu la jëm moo tax wax naa ko ay xale fii dañu ma jege ma ni leen Serigne Cheikh Tidiane si kenn xamul lu ko yàlla defal gis nga bi bi Khalifa Diouf créé le pur te dem ji gisee Serigne Moustapha pour bëgg ñu seet nu ñu ci collaborer Serigne Moustapha jox ko feu vert am ar leen moom Khalifa Diouf Aïssa Sall ak Serigne Moustapha Serigne Cheikh wax leen ni leen gis nga parti politique su ko ay xale kese amee suñu revendiquer ñetti yoon te amul lu ñu bëgg rek ci saaga lañu ñu jëm mu ni fexe bàyyi ténor ñoo xam ni seen nawloo nañu seen dégg sa seen kàddu daañu ko normal nee na ñu mel noonu ñuy waral di dugg di encadrer xale yi ci parti politique waaw waaye gis nga ko xale yi bu nu waxee ñaari yoon leen bëgg a amoon ko rek génn ci mbedd mi te parfois dana atteindre ñaanunu réew mi di di di yegg foofu ci fitna ak xat-xat soo fee nañ ñaan yàlla di ñu defal jàmm defal réew mi defal ko kilifa yi defal ko njaboot gi ah yokku cité hôpitaux yi tabaarakallah yàlla may leen doole yi ñu mën di taxaw malade yi entreprise yi yàlla di leen may kattan ñu dolliku ñu gën di mën a sécuriser salarié yi waaw ah tool yi itam di barkel maa ngi koy tooñ suma pàppe yi léegi ci biir man leen dafa mel ni baykat bu njëkk moo xaw a ëpp ëpp yitte baykatu léegi léelée ah, léeg-léeg man ku miin wàllu suuf la waaye léeg nga dugg ci tool ci jamono bi dootoo xàmmee njëmbat meeg ñax mi parce que toppatoo toppatoo ba ca war du bareetul ñu koy def bu du baatu wolof ci njëmbatu gerte wax ni gerte gu arfo mooy lan gerte gu arfo mooy lan nee nañ gerte bu arfo mooy bu ñu demee ba gerte gi muuru yëpp daje nee nañ su fa yeggee ñax dootu ko yàq waaw waaw moo tax mag ñi dañ daan bëre rek di seppi ñax yi di seppi ñax yi bàyyi bàyyi xobu xobu njëmbat li di law di law bu lawee ba dajee rek ñoo xam ni seen njëmbat yàlla mën na ci def tutura wax la tabaarakallah ñu ñaan mbay mi di gën di barkeel yàlla duñ ci dolli xereñ ñuy gën di ci am résultat ah sàmm gi di gën di sax napp gi di gën di jariñ baal leen baat yooyu la ñu waxoon parce bii nag bokk yu sukkandiku nag ñaan yàlla la la la la yóbbaale sunu yaakaar waaw que ko amatul ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa ci daraja kan lañ koy ameti xam nga imaam Ghazali dafa xëy yëg ni xolam nangootu la dégg ñu wax ko ku yàlla may ci xam-xam walla ci cër dafa xëy yëg ni xolam mayatu ko ko mu kon feebar na moom imam Ghazali mu wét na nag kon feebar na paju mu dem ubbiwaat li mu jàng woon ci sharia defe ni bunt buy tax euh, euh, euh, mu gis yoon am na mu jàng li mu jàngoon ci charia yëpp mu révisité ko taxul taxul li mu yëg ci boppam wàññi ko mu bàyyi ko fa dem la mu jàngoon ci nazariyaat te mooy théorie yi ci psychologie psychosociologie ah tarbiya ilmi tarbiya ruuxi mu dugg jàngaat pour xam ndax dana gis lu ko wan yoon mu jàng ko yëg ni feebar baa ngi ci xolam ba léegi mu ni je ma me confesser il faut confesser wu am mbokk daaram bu mu xam lu ko yàlla defal mu déy ko ko wax ko li ko dal mbokk mi ne ko lool de xanaa gannaaw yàlla yonent bi rekk ko mën a faj mooy ñu def tawassul ba mu wax nu ban yoon lañu ñu jaar matul lu ëpp benn guddi yonent bi génne solution bi yonent bi fent génne solution bu hmm? ci aaya ba rek walakin jaalnaahu nuuran nahdi bihi man nasha <laughs> wallahi aaya ba rek ci la génne sëñ Cheikh nee na la mu ci génn sax euh, doosu aspirine rek la tollal nee na ñu jox ko ko nag mu commencé sentir que ni xolam gën di woyof moo tax mag ñi ñoom bu ñu amee lu leen jaaxal sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xanaa xamoon Cheikh Omar sax bu masaane feebar yonent bi moo koy wax lu koy faj hmm? yonent bi moo koy lu koy faj du cheikh moo ko koy wax du keneen moo ko ko yonent bi ci boppam moo koy wax li koy faj pour wax la ñu digganteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku daa dem ci beneen réew ñu gëm l'islam mais doo ko yëg ci ñoom tax ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko séddee waaw ah. te boobu fekk ñu koy saxal rek mën nañuy am yi xat-xat waaye yàlla itam mën nañuy defal sutura e su ko defee ñu sant leen di jéggalu yéen a ngi fi ñëw ca waxtu ya gën a teele mais man depuis pratiquement neuf heures et demi ba léegi maa ngi ci ay ay ay gisee njaboot gu ñëw rek eh. bu dee ñaari nit la ma gis leen bu dee ñeenti la ma gis leen tabaarakallah média yi sax am na heure bu ma leen waxoon ni mën nañu ñëw waaye booba ñu ngi ma fekk maa ngi ci croisade bi rek di dugg way jur yi ñëw ma gis leen njaboot gu ñëw ma gis leen mais bés bi moo laaj loolu euh, ñoom itam li ñu moom faw nu jox leen ko waaw ah Fatiha ga ñu bokk ak ñoom ay tur kursi yi ga ñu bokk ak ñoom ah loolu ci kattanu yàlla duñu ko sacrifier mukk yal na yàlla nangu ko yàlla barkeel ko te dinu may rek suñu ñaan di gën di yëkkati ko suñu suñu jokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa di gën di génne ferñeent kon nag bokki Saalum bokki Diofior bokki Nianing bokki dakaaru ba ci sama rakki bopp yi la wallaay a kër góor gi Ahmadou Selli Diallo bi may tudd seen way jur ci suba foogu woon ni bu gannaaw tisbaar nii laay janloog yéen tabaarakallah waaw ah, a koy tudd ca suba wax dëgg yàlla xaw ma woon nii lay deme mais ñoo bokk ndono waaw ku xool waxuma la seen bàyyi nu mu deme woon ak cheikhul xalifa ak njabootu cheikhul xalifa mais yéen seen relation ak surtout góor gi rek waaw jaare la ko ca sunu sunu nijaay ba sunu mag de papa buuna yal na yàlla yokk leeram defal ko ñaanam ci njabootam ah te ba léegi yéen bàyyiwu leen kon nag yàlla barke ba topp leen sutura ba topp leen leer ba topp leen ñu remercier médias yi aussi ah ñoom itam ñu ngi def liggéey bu am solo si ñi nga xam ni wax dëgg yàlla xam nañu li seen liggéey laaj ndax dafa am scandale bu ma am en France concerne benn journaliste bu célèbre dal la ko sabab mooy dafa dem kilifa jox ko cadeau cadeau ba dem ba mel ni dañ ko jàppe ni daf ko doon corrompre mais bi ñu laajee benn journaliste bu bokk ci ABC bu États-Unis d'Amérique booba ci Peter Jennings booba journaliste yi vedette nekk ci télévision ci Amérique la bokk Canada di ko laaj lan mooy point de vue am ci scandale boobule dafa wax ni am na lu journaliste journaliste américain ñemewu ko ko bokk na ci déontologie yi booy dugg ci ci liggéey boobu yi ñu lay tere bul jël cadeau ko am doole walla ku koo xam ni turam siiw na bul nangu di bokk ak moom jëlandoog moom ñam dañ la koy tere mu ni te gis nga euh, ñi lay defloo ay enquête daa dem des sa enquête ba ñëw joxe sa résultat ñu yebal ñeneen ñu dem defa ñoom itam contre enquête pour xam ndax li nga wax am na fu ñu la jaaralee ruq suuf te nit ñi yëgunu ko wala déet waaw ah, journalisme d'investigation kooku kooku kooku bu bu adduna la neen du ko defar moo tax dañu ci encouragé bu baax euh, média yi nuy jotal njaboot yi loo xam ni rek euh, ndimbal lay doon ci ñoom te Serigne baba Sy radiyallahu taala anhu dañ ko ne mu firi walaqad wasalna lahum alqawl ah min alqawl alladi huwa alqawl ba ñu ne waaw lan la ñu war yóbbu ci rajo ba mu ni lay jariñ tey yokk nañu ko yóbbu ca rajo ba waale lay yàq di indi xajam-xajam nee na bu ko kenn yóbbu ca rajo ba su ko defee nañu nañu doon ay journalistes éclairés ñuy jox nit ñi information yu yu yu sax te wér ndax yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci yi ko yàlla njëkk a prévenir bul di sukkandiku ci fausse information pour tëral sa stratégie ko soo ko defee dangay ngay juum mënu ko les crapules yi yi véhiculer de fausses informations mu ni ko bul di sukkandiku ci di lay wax del vérifier source information bala nga koy sukkandiku ko ko in jaakum fasiqun bi naba'in fa tabayyanu waaw in jaakum fasiqun bi naba'in fa tabayyanu an tusibu qawman bi jahalati wa tusbihu ala ma faaltum nadimin yàlla ni ko soo sukkandikoo sur une fausse information agir tu vas te tromper te loolu man duma ko man safara waaw loolu moo tax ku mel ni euh, maa ngi tudd turam sànq waxtaan ci euh, xayfatul yaman ci ñi njëkk jël initiative pour nu créer a pour di démanteler os lu wérul di ko indil yonent bi sallallahu alayhi wax nañ ni sax xalaat boobu ci la demee ba ñu créer benn sorte de service de renseignement bu nga xam ni rôle mooy di di di gëstu cosaanu xabaar yi ñuy indi di ko jox kilifa yi di ko jox njaboot gi et formation dafa sensible dafa sensible ah yi wax réew mi not que damay suivre seen liggéey xam naa ko bi ma fi nekk itam da leen di xam parce que fan fa leen xamee woon fukki at ci gannaaw ba léegi jóg ñi nga xam itam xëy na da yëg ne am na ñuy wéeru ci ñoom ah pour bëgg nu wéyal yeneen xabaar itam loolu da koy nangu lu indi lu lu wérul ñu di ci sukkandiku pour doxal suñu dund yal na yàlla sàmm nu wattu nu allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatih وبق الحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي ناصرتك المستقيم وعلى آله حق قدره ربك رب العزة عما يصفون وسلام على العالمين الفاتحة أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى قد سرى وسباني قد جفا طيف الكرى وبقى السود ظلم وظلمة فقام بسيف الهم بالحر مجرده من سرين ألين جي mu ni Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu daa ñëw fekk réew mi lëndëm ne ña daan mu def leen i élément teg ne ndeysaan allahumma salli ala